سيدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته قر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المشاهدون الكرام والأقوات المشاهدات في كل مكان نحييكم بتحية الإسلام ونشكركم غاية الشكر لحسن متابعتكم ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبكيني سيطان دي توب برنامج ديني جي تي بير ريو مي ريو dellu si nañu di leen nuyu nuyoo bi gën a tedd ci mboolem nuyoo yi waaye gën a rafet ci mboolem nuyoo yi sunu borom ubbee ko ci jàmm digg bi mu def ko muy yërmande mujj gi di dox barke di ñaan ñett yooyu yëpp yal nañu ko yàlla boole defal fa tabaarakallaahu dellu siwaat nañu ak yéen ci seen programme diine ji fii ci ay Africa TV fa tabaarakallaahu di sant mbokk yi topp programme bi yépp ci biir réew mi ak bitim réew di ñaanal ñépp jàmm nag yal nañu yàlla boole defal jàmm jàmmi àdduna ak jàmmi àllaaxira mu mel ni tey suñu tomb waxtaan ñu ngi ko fas yéene tënk ci zakatul fitri mu di asakaay kor, koor asaka mudum koor zakatul fitri sarahu mudum kor. dafa nekk sarax boo xam ne yàlla moo ko santaane yonent bi alayhi salaatu wasalaam digal ñu ko ne bu ñu ba weeru koor yu jeex nañ génne sakaatul fitri moo tax ñu bëgg koo waxtaanee tey xam lan mooy asakaay muudum koor génne biñ koy génne ban njëriñ moo ñu ci nekkal ñun buñ ko génnee ba pare ñan lañ ko war a jox ñan ñoo ko eyoo ak buñ koy génnee ci lan lañ koy génnee ak ban waxtu lañ ko war a génnee ak ku xaar ba waxtu wa paase nga door koo génne lan ca am mbokk yi sakaatul fitri saraxu mudum koor sarax la boo xam ne ala kulli fardin muslimin saqiran au kabiran sakaran au unsa hurran au abdan Asa mudum koor génne ko dafa war ci bépp jullit képp kuy rek nek ci diini lislaam war ngaa génne saraxu muudum koor yonent bi farataal ko ci borom kër yëpp ne borom kër gu ne ku amee njaboot ku ne te nekk ci diini lislaam bu ñu wooree weeru koor ba mu jeex na nga génnee sa mudum koor yow ci sa bopp génneel say jabar génneel say doom waaye génneel képp koo xam ne dundam ci sa loxo la nekk war nga koo génneel muudum koor mu nekk sarax boo xam ne nag danañ ko génneel ku ne danañ ko génneel góor danañ ko génneel jigéen danañ ko génneel mag danañ ko génneel xale dinañ ko génneel gor waaye dinañ ko génneel sax jaam saraxu mudum koor borom kër gu nekk ku yàlla dénk nga amee responsabilité yore dépasse am ñuy dundal mboolem ñi nga xam ne seen dund ci sa loxo la ne yaa di jox añ reer ndéewoo war ngaa génne yow sa muudum koor ba pare génneel njaboot googu ngay dundal seen muudum koor wa tuxraju nag min qaalibi quuti ahlil balad mudum koor buñ koy génnee ci lan lañ koy génnee ci lan mbokk yi mudum koor ci ñam lañ koy génnee lu ñuy lekk buñ koy génnee ci lu nit ñi di lekk ca lañ koy génne sharia ne réew mu nekk la ëpp ci li waa réew ma di dundee bu ñuy génnee mudum koor nañ ko génnee ca loola réew mu nekk lañuy ñuy dundee dëkk bu ne ak la ñuy dundee réew mu ne ak lañuy lekk la gën a bari ci la waa réew ma di lekk bu ñuy génnee mudum koor ci loola lañ koy génne wa tuxraju min qaalibi quuti ahlil balad kon wax naa la ci liñ koy génne ci lu ñuy lekk la réew mu ne la gën a bari ci li waa réew ma di lekk def ko seen dund booy génnee muudum koor ci loola ngay jël génnee sa muudum koor kon bu dee Gambie la fii moom li gën a bari li nit ñi di lekk mooy maalo kon maalo mooy li gën ci li di génne muudum koor boo ñëwee fii ci Gambia maalo lañ gën di dundee maalo ak dugub mooy ñii di togg maalo ñii di def cere kon buñ koy génnee li nit ñi di lekk nga xam ne moom la nit ñi soxla di ko dundee charia ne booy génnee mu mudum koor génnee ko ci loola li nit ñi bëgg di ko jëriñoo ndax sarax la boo xam ne yàlla moo la ko sant ne nanga ko jox sa mbokki jullit ñi waaye yàlla bi mu la ko santee dafa bëgg nga joxe sarax boo xam ne nit dana ko mën a jëriñoo am na ci sarax yi sarax yu baax yu am njëriñ yu xamal borom njëriñ waaye am na xeeti sarax yoo xam ne amalut borom benn njëriñ bàkkaar sax la ciy far jëli mooy li xew ci àdduna bi tey suba boo yeewoo di dem jàkk boo jullee fajar bay dellu wala boo génnee sa kër sa kër xëy di dem liggéey Johnson boo àgg ñu ngi fa teg ay nàkk ay nakk dugub wala maalo boo xam ne dañ ko def nàkk wal ko ba mu wow ñu def ko ay dànk dem saam ko ca Johnson ba def ko juróom-ñaari saam wala jël ay nen jël juróom ñaari nem, wala fukki nen ak ñaar dem ba ci Johnson ba fi fi fi yoon yi dajee nga lal ci suuf teg sa nàkk jël say nen teg nga ne da ngay génne sarax noonu te da nga bëgg sarax bi yàlla nangul la ko nga bàyyi ki nga waroon a jox sarax bi mu jëriñoo ko nga romb ko ca kër ya ñëw sànni ko ca mbedd ma moto yi di fa jaar di ko dëggaat nen yi di toj natt gi di yàqu dugub gi di tasaaroo maalo bi di tasaaroo te nga mën koo mënoon koo jox doomu aadama yi mu mat leen ndékki baa mu mat leen añ nga dem sànni ko ca mbedd ma moto yi ñëw dëggaat ko nga fokk ne ndax yow li ngay wut yàlla dina la ko may abadan sarax dafa am ñu yàlla tudd ne ñooñu ñooñu ko yeyoo ku ci amati looy saraxe yàlla ne na jox ko juróom-ñett ñi ma tudd ci alquran innama sadaqatu lil fuqara yàlla ni na mbopp mbedd mi maa leen ko gën a gis suuf si maa leen ko gën a gis waaye santuma leen ngeen jël ay ay nàkk ak ay nen di ko tuur ci mbedd yi moto yi di ko dëggaat ngeen di yàq ay ndékke seetal juróom-ñaari nen rek fukki nen ak ñaar boo ko mayoon benn sii sikkundaa mu baxal ko ba mu ñor bu amee omelette walla mu am bu ko neexee omelette bu ko neexee baxal bu amee mayonnaise ci armaan ci nag am mburu bu tàng am salade am ay jënam yum fray lu dàq loolu ci ndéew nga xañ ko nit ñi sànni ko ci mbedd mi ndéewu yu bari yàqu nga ne ndax sa ajo yàlla dina la ko fajal ma ne déedéet boo bëggoon mu faju da nga koy jox ku koy jëriñu moo tax loo ci gis mbër yi nga gis yépp ñu dem ci lamb ji summeeku def yaramu neen julliwuñu tàkkusaan duñ julli timis di sottee ko ay soow sottee ko meew napp ay picc ay pitta di leen toroxal jël ay nen yëkkati seen loxo ba ci kawam ñu dóor nen bi ci suuf toj ko loo ci gis ñoo gën a mën a daanu ci làmb ji arène bi daanu rek yàlla neena teranga jima len defal lek len ci nan len ci way bu len yak kullu wasrabu wala tusrifu lutax moy innahu la yuhibbul musrifin yàlla neena waxuma ak yak kat yi dara waxuma ci sen affaire dara kon saraxu mulum koor réew mu nekk la ëpp ci la ñuy dundee boo koy génne ci loolu nga koy génne boo demee fu mel ni Màkka nga xam ne ñoom tàndarma lañ gën di lekk ñoom mën nañ ko génne ci tàndarma ñuy dunde maalo génne ko ci maalo ñu nga xam ne ay jarga lañ li ëpp ci seen waa réew meew ak soow lañuy ñuy mën nañ koo génnee sax ci soow ah kon saraxu mudum koor sharia daf ko ubbi ne réew mu nekk la gën a bari ci li ñuy dundee bu ñu koy génnee nañ ko génnee ca loola nu muy toll nag miqdaaruha wahiya saaxun saraxu mbuudum koor buñ koy xayma nu muy toll mooy benn saax lay doon benn pot la boo xam ne ñu ngi ko tuddee saax pot la ci pot yi kenn la ci natteekaay yi façon pot boobu moom ngay wut natt ko ci maalo ba mu fees nga sotti loolu mooy cëru kenn nit nga nattal sa bopp natt say say sa cëri jabar yi natt doom yi nga am yëpp ak ñi nga xam ne seen dund ci sa loxo la ne kenn ku ne benn pot lay doon saa boobu boroom xam-xam yi xayma nañ ko ci ne benn saax bu ne dina toll ci arbaatu amdaat ñeneenti mudd bi muddi nabi sallallahu alayhi ci mudd yonent bi nag mooy boo dajalee sa ñaari loxo yi tibb ko maalo ba mu fees nga sotti boo ko defee ñeenti yoon loolu moo tolloo ak benn saax mooy ciru benn nit waaye bàyyil sa xel xam nga ni nit ñi dañ ëppante am na ñoo xam ne loxo yu tuuti lañ am am ñu am loxo yu rëy ñu ne nag buñ ne ñeneenti mudd ay arbaatu xasanaat mooy ci mudd yonent bi yonent bi loxoom yi nam toll woon nga xam ne yaatuwut réyut ba ëpp waaye tuutiwul ba ëpp loolu mooy cëru kenn nit Hmm? nga compter li nga am ci ay jabar yëpp compter li nga am ci ay doom yëpp compter xale yi nga xam ne dañ la ko sédd nga amee leen ñuy dem ci yow school te nga amee seen lépp ba ci sa liggéeykat yi ñëpp koo xam ni dundam yaa ko amee rekk mën nga ko koo génneel waaye nag ci ñam ci lu ñuy lekk kañ lañ koy génne nag muudum koor jullit bi mën na koo génne buñ ne korite bi des na ñaari fan korite bi bu desee ñaari fan bu la neexee génne ko bu la neexee xaar ba korité bi des benn fan nga génne ko waaye li gën a baax ci waxtu bu ñuy génnee muudum koor mooy buñ ne weer wi feeñ na suba la korité bi nga jullee fajar ba pare fajaru keroog googu suba si nga koy génne ko jox ko seeni boroom bala ngaa dem ci julleekaay ba foofa la gën a baaxe bi nga koy génne ñaari fan fekk waragut bi nga koy génne bi mu desee benn fan waragut kañ la wax buñ demee ba jant bi so ñu séentoo gis ne weer wi feeñ na guddi keroog war na ci sa kaw léegi pour nga génne ko kan moo koy génne nag mooy ki nga xam ne am na añu tey ki am añ añu tey am añu ëllëg ci korite bi am na lum dundee bisu tey bi ba pare am lum dundee ak lum dundalee njabootam ci bisu korite bi ah kooku nag war na koo génne kon ki am dépasse tey ak ëllëg bàyyil sa xel ne muudum koor génne ko war na la war na la ñu ne nañ ko génne ñaari fan balaa julli gi walla benn fan balaa julli gi dañoo bëgg sarax bi teel a egg ci seeni borom bu teelee egg ci miskin bi walla faqir bi moom dina xam li muy def añ ak ni muy programme koriteem bi jullim bi ba yépp mën a yemb mu am korite bu neex kontaan comme ñépp ñu ne kon gaaw gi joxe mu dem ci borom mu seet nu muy doxalee koriteem moo gën a baax ñii ne déedéet xaaral ba mu war ci bisu korite bi boo jullee fajar julli suba ba pare bala ngaa dem ci julleekaay ba nga génne ko ci waxtu woowu jox ko seeni borom foofu la gën a baax ñu ne lu tax ñu ne mën nga ko teel a génne mën nga ko teel a génnee ba pare nga ñëw takkaat soxna ci diggante bi mën nga ko génne ba pare sa jabar ñëw am doom gannaaw boo ko génnee te xale bi nga xam ne dañ ko wësin sax ci fajaru korite bi mu nekk liir sax du tere danañ ko ko génneel kon xaaral ba yegg ci mujjug waxtu wi mu wóor la ne boo waroon a am soxna am nga ku waroon a juddu juddu na nga génne ko benn yoon génneel ñépp mu wàcc la sarax bu am solo la nag boroom xam-xam yi coow nañu ci xikma bi tax yàlla di ñu ko sant njëriñ bi ci nekk ba tax yàlla di ñu ko génneeloo boroom xam-xam yi wax nañ ci lu yaatu bi ci njëkk ñu ne saraxu mudum koor bokk na ci njëriñam li muy dox mooy dafay dox lu ñuy tuddee ab takaafulul yi saraxu mudum koor day xiir nit ñi di leen ñaax ci jàppan jàppalante ak dimbalante bokk na ci li muy jàngale moo di ay jullit ay mbokk dañuy jàppante waaye dañuy dimbalante ñi man di dimbale ñi manut ñi am di yóbbaale ñi amut ci seen wërsëg ñu bañ a ñu bañ a bàyyi kenn gannaaw bañ a bàyyi kenn mu ñàkk añ walla mu ñàkk reer loola bokk na ci li muy jàngale moo tax ñi am génne ci seen wërsëg yàlla ne dimbaleen leen ma ñi nga xam ne dañoo dëkk ak yéen nekk ay nit te ma nattu leen ci ñàkk yéen ma jox leen wërsëg yéen ñi ma jox dimbaleen leen ma ñi ma joxut ci seen wërsëg lépp yàlla la moo jox kële waaye moo xañ kële ba pare nag ne yow mi ma dénk wërsëg bul fiir nag paraawut foog ne ndax wërsëg wi ma la jox alal ji pour bànneex kese la waaye bàyyil xel ne nattoo ngi ci biir lekk ci naan ci solu ci bànneexu ci waaye dimbalil ma ci ñi amut def ci lu baax su boobaa jox gi ma la ko jox mu nekk yiw pour yow moo tax ñi am yàlla daf leen nattu waaye ñi ñàkk it yàlla daf leen nattu pour seet ndax danañ muñam ndéet ndax danañ goreem ndéet hmm? moo tax fa yanbaqi ala al muslim alladi aghnaahu llahu min fadlihi an la yansa aqaahu alfaqir bokk na ci njàngaley saraxu mudum koor ki yàlla dénk wërsëg mu génne as tuut ci wërsëgam dimbalee ko ki amut ndax islaam bokk na ci li ko tax a jóg mooy xeex ñàkk ci diggante jullit ñi moo tax mu indi ponk bu ñuy wax azaka mu nekk ponk ci biir ponki lislaam yi bàkkaar yu bari bu ko jaam bi defee daan yëg ko sharia di daan dana cay bokk génne sarax yooyu yëpp xeex ñàkk la ci diggante jullit moo tax yonent bi ne nangeen ngeen faxe ba bisu korite bi yéen ñi am na ngeen génnee seen muudum koor yi jox ko ñi ñàkk na ngeen leen jox di leen jox di leen jox bañ doylu ba nga xam ne bisu korite bi duñ génn mukk di dem taxaw ci mbedd mi di yalwaan uxnuhum fi hada al yawm an sual na ngeen leen jox ba ñu doylu ba nga xam ne benn yalwaankat benn miskin du génn di wuti lum añee walla lum jox njabootam ñu reeree ko bi ci gën a neex nag mooy saraxu mudum koor dafay laabal bakkanu aji woor ji daf koy setal wecc daf koy setal ci lan ci bépp mbóosóor moo xam ne wax na ko ci biir koor gi ak bépp ñaawteef boo xam ne bëtam sàcc na xool ko walla noppam dégg ko walla mu rëccale làmmiñam wax lu ñaaw fekk mu ngi woor te koor àndut ak wax ju ñaaw njuumte yooyu rëcc rëcc yooyu saraxu mudum koor ci la yàllay jaar ba raxasal ko jullit bi raxasal ko aji woor ji ba kooram set wecc yaramam set wecc yàlla nangul ko kooram ibnu abbas wax na ko nee na farada الله sallallahu alayhi wa sallam zakat alfitri tuhratan من اللهو والرفص وطعمة للمساكين ابن عباس نينا يننتبي صلى الله عليه وسلم نينا سنو بورم فراتالنا تي جلتني ني ني مودم كور mel ni dañ ko laaj ne ko génne asakaay muudum koor ban njëriñ moo ci ne yenent bi ne dafay laabal bakkanu aji woor ji lim doon rëcc li làmmiñoom doon rëcc di wax lu bon noppam di ko dégg bëtam di ko xool ñaawteef yooyu muudum koor bi génne bi nga koy génnee ci la ci la la ko yàlla di jéggalee dootul la ci toppati dara kon day laabal yaram wi kon mudum koor li ko tax a jóg mooy laabal bakkanu nit ki ba mën a dëkk ak yàlla ëllëg asaka nag day laabal alal kon ñaari sarax yi bokkuñu bële alal ji lay laabal setal ko waaye mudum koor moom jëmmi nit ki ci boppam moom lay setal ci mboole mi bàkkaar ak ay ñaawteef te xam ngeen ne yàlla du dëkk ku tilim yàlla ko set rek lay dëkkal innama yataqabbalu llahu min almuttaqin waaw bi ci des mu ne bokk na ci njariñu génne muudum koor mooy lele la pour fuqaraaw yeeg masaakin yi ndimbal la ci ñoom bu ngeen leen ko joxee mu ngi mel ni dundal ngeen leen jox ngeen leen ñu lekk ba suur te sarax bi gën ci sarax yi mooy jox nit ku xiif mu lekk afdalu sadaqati an tusbiha kabidan jaa'ihan sarax bi gën ci sarax yi mooy dundal jëmm ju xiif kon mbokk yi dinañ taxaw lu foofu ubbi line bi ngeen mun a bokk si incha allahu taala ci darsu bi du ñàkk ngeen am lu ngeen ci bëgg a laajte su boobaa dina woote ci two three two three two one three two three two one three ñu ngi ànd ak yéen ci diine ji fii ci ay Africa bi kon saraxu mudum koor bokk na ci xikma bi tax yàlla di ñu ko génneeloo mooy dafay laabal bakkanu aji woor ji waaye ndimbal bu rëy la ci fuqaraa yi ak masaakin yi léegi nag sarax boobu buñ ko génnee kan lañ ko war a jox kan moo ko xeyoo Lego nek ñu génné ko waaye suñ problème mooy bala yàlla di nangu ne muudum koor bi nangul na la ko foog nga jox ko ki ko yeyoo paasin bi ko yeyoo ci biir jullit ñi boo ko joxee rong paasin du baax soo ko génnewut du baax boo ko génnee te joxuloo ko ki ko ba kon kañ lay baax da koy génnee ba pare jox ko ki ki yàlla wax ni kii mooy ki ko xeyoo moo ko disaaf nga jox ko ko benn tey di ngeen mun a ànd ñun ci tuutiri tuutiri tuwantiri insha allahu taala kon saraxu mburum koor yàlla tudd na juróom-ñetti nit ci alquran ne ñoom ñooy ñi ko waaye boo ñëwee ci mburum koor nag ñaar la yàlla jiital ci kanam ni muudum koor ak asaka ñaar ñi ñoo ko gën a yeyoo ñu ne kan mu ne ma sadaqaatu ñu jël Amadou si di koolee esaw ci line bi incha allah salaamualeykum Amadou. waaleykum salaam wa rahmatulah ustaz. def. alhamdulilah naa def. naka waa esaw. waaw esaw waaw waaw. alhamdulillah bismillah ye made mande mono atar affaire muɗum korbi man nak dama kire wa demba dem ci guri laaɗine de haw man nak dama koy wat wala dama koy baye non rek nga ne muɗum korbi waaw muɗum korbi waw waaw demba demba ci guri laa génne suma famille bi yëpp démb ci guddi nga ko génne wa démb ci guddi la ko génne waw wa baxna ah mané batay baxna loolu laa bëgg xam nga man man la waaye lu ma dégg. am na am na ci fuqaha uy ñu wax ñu wax ne mun nga ko génne sax tilidees ñetti fan. ñetti fan balaa korite bi. waaw ñaari fan balaa korite bi. benn fan balaa korite bi. mën nga ko génnee buñ ne tey la julli gi. boo jullee suba bala ngaa dem. julli gi nga génne waaw kon jërëjëf jërëjëf loolu laa bëggoon na xam. tabaarakallah yal na yàlla nangu lépp. yal na yàlla nangu ko kon mu ngi noonu gis nga boo ñëwee ci wàllu asaka yàlla dafa tudd juróom-ñetti nit ne ñoom ñoo eyoo pour ñu jox leen asaka waaye mu jiital ci ñaar gis nga ñaar ñi yàlla jiital dafa lay jàngal ne ñooñu ñoom la yàlla jox force priorité booy génnee asaka nga njëkkee ci ñooñu ñooñu ñoo ko gën a yeyoo boo ñëwee ci muudum koor ñaar ñooñu ñoo ko gën a yeyoo mooy ñan innama sadaqaatu lil fuqaraai wal masakin yàlla nee na sarax bu dee ni yàlla tax ngeen di ko génnee juróom ñetti ñi alquran tudd ñépp eyoon nañu ko waaye ki ko gën a yeyoo ci ñoom mooy faqir fakiir mooy ku ñàkk kan mooy faqir mooy koo xam ne am na salari mu ngi fayee ko weer waaye liñ koy fay weer mënu koo dundal ak njobootam ba weer wi dee li muy am doyu ko kooku mooy fakiir léegoo léeg mu ñàkk léegoo-léeg du am dépasse waaye rus naa génn ci biti taxaw di yalwaan kooku mooy faqiir mbokk yi kon buñ génnee fuqaraaw yi ci Gambia boo sàgganee réew mi jeex fakiir mooy kan mooy koo xam ne li muy am mënu koo yóbbu dundal ko ba weer wi dee kooku mooy faqiir léegoo-léeg mu ñàkk doo am dépasse waaye as gor la ruus naa génn taxaw ci mbedd mi di yalwaan yàlla nee na bu ngeen di génnee asaka walla ngeen di joxe muudum koor njëkkee leen ci borom kër googu nga xam ne li muy am doyu ko te mënta laaj jox leen ko mu nekk sutura benn tey mun ngeen woote ci two three two three two one three two three two one three insha allahu taala kon gis nga asaka ak muudum koor ñépp yàlla faqiir la jiital ci kanam mooy ki amut ki nga xam ne li muy am doy ko ma ne kon boo xoolee Gambie yëpp ay foqaraaw lañ yàlla ne ki ci topp mooy wal masaakin muudum koor mën ngeen ko jox miskin kan muy miskin mooy ki yàlla natt manta gor man manta yett manta liggéey yàlla def ko nattu ay ciram nattu ko ci cër manta dox wala manta liggéey walla gisut yu mel noonu waaye nag kooku moom rusut génn pour laaj kon kooku moo tane faqiir bi parce que faqiir bi bu ñàkkee day am kersa ci laaj waaye kii nag moom amut waaye mu ngee laaj kon moom mu ngee daj tuuti tuuti moo tax yàlla jiital faqir bi ci kanam doo a teg miskin parce que miskin bi bu xëyee am lu mos ñu jël karamo tuure forom bi jiloo salaamaaleykum karamo salaamaaleykum hello waaw karamu naam bismillah hello salaamaaleykum waaleykum salaam karamu aha bismillah oustaz Lomba naam ah bismillah oustaz naam jërëjëf nakam nag ñu ngi sant yàlla naka famille bi alhamdulilah waaw wara bi neex na maa ngi laa dégg maa ngi kontaan si yow jërëjëf Touré waaw ma ne. waaw. mudum góor bi nga ne su soo ko génnee naka nga mën a ko génnee da jël sa loxo bi ñaata yoon nga war a def. waaw am na am na benn pot. bu ñuy jaay. waaw. pot boobu moom lañuy tuddee saa. waaw. façon pot boobu moom ngay nattee maalo bi. waaw. benn pot bu nekk mooy pour kenn nit. waaw waaw. léegi nag yow dangay ngay sa bopp sa jabar yi ak sa doom yi ak ñi nga xam ne yépp yaa ngi leen amee di leen dundal. waaw te ñoom nuñ koo génneel seen bopp. waaw su ko defee ku ci ne nga nattal ko benn pot. nekk benn pot. ku nekk benn pot. waaw. su fekkee pot bi amut nag man foofu laa bëgg a xam. su pot bi amut am na beneen solution boo demee ci pot bi ñuy jaayee maalo. waaw potu maalo bu ndaw boobu kop si maalo bu ndaw boobu waaw soo ko amee boo ci nattee nine cops nine cops juróom-ñeenti cop nine waaw waaw mooy fees benn saa ñoo yem ok ok kon boo amul pot bu mag bi waaw utal potu maalo bi ku ci ne nga nattal ko nine cops si maalo nine cops nine cops ok understand waaye dama dama bugg a laajte nine. waaw. ok. nine cop. Mm, ok. ok. su fekkee ba léegi loolu xamuloo ko. Mm-hmm. bu dee da ngay peese. waaw da koo peese ñaari kilo ak genn wàll. ñaari two kilo ak half. two kilo ak half. waaw. ku nekk loolu la war a am. mooy kenn ku nekk. bu dee da ngaa peese pour mu mut mm-hmm. paasin bu nekk danga nga koo peeseel two and half kilo si maalo boo amee pot bi nag ku ne nga nattal ko paasin bu nekk benn pot soo ko amul nga ut pot bu ndaw bi ñuy nattee maalo nga natt ci nine cup si maalo mooy pour benn paasin benn nit benn tey 2 3 2 3 2 1 3 kon muudum koor ñi ko gën a yeyoo mooy fuqaraa yi ak masaakin yi boo ko génnee ñooñ nga ko war a jox su fekkee nag ne yow xamuloo ñi ko disaaf ñi ko eyoo pour nga jox leen ko kon mun ngaa dem ci ilimaan bi lay jiite nga ne ko dama génne suma muudum koor bi mu ngi nii te man xawma ñan ñoo ko eyoo ma andil la ko nag comme yow njiitu lislaam nga nga joxal ma ko ñi nga xam ne ñoom la yàlla wax ne ñoo ko eyoo nga jox nga jox ko ko mu joxee la ko su boobaa ba tey loolay baax na soo ko xamalee sa bopp nag joxe ba tey mun ngeen bokk ci programme bi ci two three two three two one three ñu ngi ànd ak yéen ci diine ci fii ci Eye Africa TV ma ñëw na ci ki nga xam ne daf ko génne bala ñoo julli ji lu ma tabaaj xel ñu jël Mamadou Bari From yundum mu nek suñu last call la tay ci jotay bi alaykum mamadou salam wa rahmatullah na nga def mamadou na nga def ma ngi fi alhamdulillah naka wa bat, naka wa yundum alhamdulillah ñu ngi ñu fi jaam alhamdulillah bismillah Wa ma lay way jere jef na wa jere jef kontaan nan bu baax mhm. yàlla lay aljanna waaw mun nga wax rek te bañ a déglu sa bopp ci télé bi jërëjëf ñu sant Mamadou Bari koole fële ci yundam mbokk yi saraxu mudum koor lu mat a bàyyi xel la dafa am waxtu bu sunu borom bëgg ñu génnee ko ci dafa am waxtu du waxtu bu la neex rek nga koy génne mais dafa am waxtu waxtu bi nga xam ne moom la yàlla bëgg nga génne ko ci wax naa la ko balaa julli gi ñaari fan balaa julli gi benn fan balaa julli gi ba ci bisu julli gi ci suba bala ngaa julli gi foofu la gën a kon liñ bëgg mooy nga génne ko bala ngaa dem ca julleekaay ba génne ko jox ko seeni borom ba yépp jeex nga door a dem julli ci yenent bi ne man addaaha qabla salaati fa hiya zakatun maqbula wa man addaaha ba'da salaati fa hiya sadaqatun min as ñu jël yunus salaamu aleykum Hello, bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. bismillah soxna si. oustaz. naam na nga def. sa mu jéem soor mun naa génnee meew. dégguma. meew meew. meew. waaw. Wa ñi nga xam ay ay jarga lañ ay pol lañ. Ah. te ñoom mew ak soow la dundé man nañ ko ah. ci génne <laughs> macha allah kon mu ngi non képp koo xam ne yenent bi ne na képp koo xam ne génne nga muudum koor bala ñoo julli bala ñoo julli iit korite bi balañ koo julli yow ci nga génne sa muudum koor joxe ko mu ne yow sa mudum koor yàlla nangu na ko yàlla nangu na ko boole na ko ci mudum koor yim nangu mu ne boo sàgganee nag génnewuloo ko ba dem julli ji ba ñëw door koy génnee mu ne fum ne amuloo mudum koor de ordinaire sarax rekk nga am waaye eggut ci darajaay mudum koor eh, Ordinary sarax rek nga am kon ñu ngi leen koy lo xel ñu gorlu ci genné ko ndax dana jur dimbalante bu reuy ci dimbalé fuk, digënté fuqara kori masakini ndax korité bi bisu ait la bisu mbekté la ayaamu aklin wa surbin la fan lekk la fan nan la mbégte mi yàlla bëggul mu yem ci ñi am rek waaye dafa bëgg ñi am bëgg ñi amulit ñu dimbale leen ñu lekk ba suur ak seen njaboot naan ba màndi su ko defee mbégte mi ñépp bokk ko kontante bi ñépp bokk ko loolu la yàlla bëgg yal nañu ko yàlla defal ñu ngi wis ñépp iid ah, mubaarak di ñaan yàlla yal nañ ko fekkee at yu bari والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في